bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi nit ku baax ki te yiw yaru yaatu te bari njariñ taalibe bu mag bi di El Hadji Seydou Sy grand communicateur religieux de la banlieue El Hadji Seydou Sy bu Serigne Fall moo si ak mbégte mu mag di yëgle ak di woote ci bés bu mag te màgg bi muy def at mu nekk grande journée delloo njukkal ak sargal Cheikh Mohamed Fadel Mbacké Khadim Rassoul samedi la ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru novembre 2022 bu 5 heures ci ngoon jotee ca Géejawaay rond point Mor Fadam muy am ci kaw ndigalul Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des Mourides yàlla na fi yàgg lool Mbacké tànd ko kilifteefu sëriñ Abo Mbacke xalifab sëriñ Fallou sëriñ Bassirou Mbacke Fallilu jëwriñu kër sëriñ Fallou ci présidence d'honneur bu sëriñ Fallou Galasloo Gaydel buur daali gaynde kokki gi bésub ren bi nag ñoo ngi ko dara jaalee nit ku baax murit saadix léppam sëriñ Touba la jàmbaar dëgg ci yoonu murit mu di Cheikh Souley Diagne président directeur général Aliou distribution marraine d'honneur yi ñu ne sëtub sëñ Bamba bi soxna Bali Muntaxa fondation soxna Bali madame le ministre Mariama Sarr soxna Aji Fay bu sëriñ Cheikh Oumy Fallilu soxna May Mbacke bu Alaaji Baara soxna Seyna bu Thiam madame Ndiaye bu sëriñ abdu Akim ak soxna Faati si transitaire bu mag bi invité d'honneur yi son excellence monsieur Macky Sall président de la république du Sénégal ak soxnaam soxna Mariam Sall première bu Sénégal monsieur le premier ministre Amadou Ba Antoine Félix Diop ministre de l'intérieur monsieur Matar chef de cabinet du président de la république monsieur le ministre Birima Mangara honorable député Oumar Youm El Hadji Mbackiyou représentant Serigne Touba à Dakar Serigne Seydina Omar Bousso représentant Serigne Touba à Guédiawaye monsieur Modou représentant Fallou Mbacke PDG Fadel Business Company Serigne Fallou Mbacke RTL Transit Serigne Abdoul Khafour Mbacke PDG Serigne Cheikhouna Mbacke PDG Ndindi Transit El Hadji Tahirou Sarr opérateur économique Mohamed Nazir Samb PDG Africa Bloom Corporate Serigne Oumar Bawo mu Cheikh Mountakha monsieur Moustapha Sow PDG Banque Microfinance monsieur Alioune Sall maire monsieur Mor Waré Gueye maire de Ndiarème Limamoulaye Serigne Mohamed Samb soldaaru Serigne Touba Mbacké Samb PDG Gouya Transit monsieur Babacar Ndiaye Dindiak opérateur économique monsieur Mohamed Silla PDG mu Serigne Amsatou Dialibatu monsieur Cheikh Mbaye Gueye PDG ambassadeur Serigne Mandoumbe monsieur Moustapha Dia PDG Simpa colonel Mouhamadou Bamba Sall colonel Lamine Sarr oustaz El Hadji Modou Fall bu télévision Futur Média monsieur Daouda Faye opérateur économique monsieur Khadim Dia bu El Hadji Mbaye Dia opérateur économique Chérif Dione borom restaurant L'Amiral Serigne Omar Ngom di kilifa diine monsieur Ibou Fall PDG Bogo Transit monsieur Youssoufa Silla PDG Satracons monsieur Bara Samb Dubaï di opérateur économique monsieur Moustapha Fall opérateur économique monsieur Khadim Diop opérateur économique Serigne Papa Sarr bu Serigne Ahmada Sy bu Seydi Jamil Sy Cheikh Samba Khaya mu Cheikh Sidi Moukhtar ak Serigne Abdou Ndiaye Kourousti ci Pikine grande journée delloo njukkal ak sargal Serigne Fallou Mbacké ak le communicateur religieux de la banlieue El Hadji Seydou Sy dinañu rendre hommage ca bés ba fa ñaanal fa radiyallahu taala anhu Serigne mu Serigne Fallou radiyallahu taala anhu Serigne moom Cheikh Massamba ak radiyallahu taala anhu Cheikh Abdourahmane Fall samedi novembre à partir de 17h ci Guédiawaye rond-point Fadam ku ci soxla ay leeral jokkool bi ci 77 502 62 44 ya axar baax ya law